Cheikh moom la doon xaar depuis sànq waaw <laughs> ah, loolu laay wax tey papa Pape Cheikh li <laughs> Marianne la doon xaar depuis sànq dégg naa dafa fay télé bi di xaar Marianne yegg si Marianne bisimilah. waaw ma koy nuyu di ko ziar muy suñu papa tonton Mbaye Diallo moo jàngal sama papa tiire fetel waaw sama waay la koy ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér sama waay la <laughs> waaw ba euh, tey li ñu fas yéene waxtaanee mooy jigéen mhm. jigéen euh, dafa am solo ndax li ko waral mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam nga bi may def ci socc bi maa ngi lay wax nii euh, yonent bi li mu mujjee def sallallahu alayhi wasallam mooy socc mais li mu mujjee digle mooy maa ngi leen di dénk jigéen ñi ah. mais également maa ngi leen di fonkloo julli loolu la mujjee wax kon pour wax la ne la que euh, jigéen nekkul ay caaxaan comme ni ñu koy waxee donc jigéen dafa nekk loo xamante ne dafa am solo Jeynab ba pare euh, àdduna bi dañ koy xaaj ñaari xaaj benn xaaj bi nekk góor benn xaaj bi nekk jigéen mais benn xaaj bi dafa yaakaar beneen xaaj bi pour dem parce que jigéen la ñu yaakaar pour mu defar góor jigéen lañu yaakaar pour mu defar société. Mhm. kon ci ñaari xaaj yi benn xaaj bi dafa soxla beneen xaaj bi. Mhm. ngir mën a nekk. benn mënul dem bàyyi sa morom benn mënul dem bàyyi sa morom rawatina xaaj bi yaakaar ci beneen xaaj bi. Mhm. muy góor yi te euh, euh, loolu euh, lislaam tey moo ñëw wane ko mais laataa loolu. dafa bëri woon ay préjugés yoo xamante ne moo doon am ci jigéen wala ay gaafal yoo xam ni moom lañ doon def jigéen ndaxte affaire yi tëbul rek sotti comme ni ñu koy waxee xam nga euh, fii nii sax Sénégal da ngay gis euh, su fekkee da nga am doom jigéen ñu ne ah su dee góor nga ñu ne ah soo amee doom bu góor ñu ne ah jàmbaar la <laughs> loolu dafa nekk ay ay aada yoo xamante ne dafa dafa ñu jiitu jiitu jiitu mais mais mais dogguma la man am na benn paa bu ma ne euh, taaye la ne le na ma yàlla baal mais su nekkoon damay tànn ay doomu jigéen dong laay am ndax jigéen ñi ñoo ëpp jom góor dëgg la professeur waaw dañ ma ko wax nag <laughs> non li mu loo loolu mu wax dëgg la te xam naa ne yaakaar naa ne moom am na fu mu ko teg moo tax mu wax loolu c'est waaw mais mais jigéen euh, léegi la neex euh, ku nekk di am doom bu jigéen xëy na di ci tiitoor wala dara mhm. mais avant li nga xamante ne moo daan am mooy jigéen su suñu koy mayee jox ko canam papaam da koy lekk hmm? jigéen euh, dañ dara ku góor ki dafa daan takk soxna nu mu ko neexee amul limite ku mu ku mu gis rek xelam nekk ci moom mu dem takk ko euh, jigéen dañ ko daan doonante comme nu mu leen neexee euh, ku juraan euh, góor jigéen astafurla da nga daan gas suul ko fekk mu ngi dund loolu daf doon am parce que gis nañ ko mel ni Xays ibnu Xaasim bi nga xamante ne moom dafa dafa tuub dugg ci lislaam mu ngi nettali yonent bi sallallahu alayhi ne ko moom am na fukki doom lu ëpp fukki doom yoo xamante ne dañu dañu juddu nekk ay jigéen mu gis ni ñi ay jigéen lañ mu suul leen fekk ñu ngi dund kon pour wax la rek ne la euh, lu metti yàgg na fi te loolu yëpp ay jigéen lañ ko doon def di leen toroxal di leen def ay métital yoo xamante ne dafa bëri léegi nag bi nga xamante ne l'islam ñëw na nag droit droit de la femme bi nga xam ne moom lañ doon féete démb l'islam moo ñëw commencé jox euh, jigéen ay droit ak ay devoir bokk na si ñi nga xamante ne diine l'islam ni mu joxee gëdd jigéen yaakaar naa ne euh, buy am tamit amul benn diine boo xamante ne joxe na ko euh, mhm. gëdd oto mhm. parce que euh, jigéen le fait que ñu tuddee saar jigéen mhm. suratu nisa non non yaasin yonent bi salaay lañ ciy wax ah, mais suratu nisa mooy saar boo xamante ne moom jigéen yi lañ ko jagleel te ci biir saar boobu bu ñuy takk sëy aaya yu ñuy takkee sëy ci saar boobu la nekk soxna yi nga xamante ne yow booy jël soxna ñi nga war a takk maanaam koo xamante ne yéen a nàmpandoo euh, koo xamante ne euh, sa frère la waroo leen sëy jigéen ñi nga xam ni yow gu góor ki booy takk soxna jigéen yooyu nga war a takk loolu ñu ngi la koy wax ci biir suratu nisa ba pare miraas tamit si biir si biir saar boobu noonu leen la koy jox ba pare ñu am soxna boo xamante ne euh, muy yaayu yonent yàlla insa mu am saar Euh, soxna Mariam yaayu Insa moom itam am na saa ñuy tagg ay qualité am turam ñëw ci arxuraan euh, lu ëpp fanweer yoon wala fanweer yoon. Mhm. xam nga kon loolu am na solo ba pare euh, ñu amaat tamit saar yoo xamante ne li ko tax a jóg mooy jigéen yoo xamante ne dañuy jàmbat mhm. di am seen problème di ko diis yonent bi salaay salaam yàlla wàcc ay aaya pour régler seen ay solution suratul mujaadala mhm. soo demee yàlla mu ngi ciy régler problème boo xamante ne jigéen la jigéen tamit yàgg xeex ci lislaam yàgg indi ay yu bëri yonent bi comme ay góor yu ko daan faral di topp ñu am ay jigéen yoo xamante ne dañuy jaayante ñëw lislaam di leen tudd suratul na boo demee da nga ko fay fekk yàlla di ko fa wax kon jigéen pour wax la rek taxawaayam jigéen yàgg na ci biir diine yàgg na ci indi ay ay ay ay coppite yu bari ndax eh, ñun am nañ sax jigéen boo xamante ne yaakaar naa ne eh, xeex na xare uxut yonent bi salaay salaam di wax njàmbaarteem di wax ni moom euh, rendez-vous am moom ak waa këram yaakaar naa ni àjjana la kon pour wax la taxawaayu jigéen yàgg na fi te taxawaayu jigéen noonu mu yàggee ci biir lislaam dañ leen di tudd saa su ne ku mel ni yaa nga dégg alimatu saadiya ñu lay wax ni moo nampal yonent bi salaay salaam ak doomam Cheyma ñu nekk ñoo xamante ne dañu liggéey bari lu ñu bu lu ñu liggéey ci ci biir diine lislaam ba nga xamante ne dañ leen di citer en exemple ak képp koo xamante ne soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga dañ lay cité euh, ki nga xamante ne mooy jabaru Firawna jëkkëram nekkul woon ku baax mais moom bokk na ci ñi nga xamante ne jigéen yu exemplaire la woon bu weesoo ñooñu tey jii soo ñëwee si fi nga xamante ne mooy Sénégal ñun tamit dañu am ay ay référence nga xamante ne ñi ñu jural suñu sang yi nii yëpp ay soxna jaara soxna Fatou Wade e, nga xamante ne mooy yaayu Serigne Abba Sall e, ay soxna Assou jànq yaaru Maulana Cheikh Ibrahim e, soxna jaara yaayu Cheikhul Khadim ñu bëri ñoo xamante ne soxna Koumando yaayu Seydina Limaam ñu nekk ay jigéen yoo xamante ne waaw ay référence lañ tey jii nii seen référence suñ leen di tudd lenn lu ñu gën a tuddee mooy yiw bi mm-hmm. le fait que ñu yiw mais également di togg di joxe dafa bokkoon si ay qualité jigéen xam nga su su fekkee tudduñu ñooñ sax si diine hmm. mais suñu ñëwee ci aada li nga xamante ne moom lañu doon critères yu ñu doon xoolee jigéen bu baax mooy nit nit du ñëw sa kër te joxoo ko mu lekk wala joxoo ko mu naan même su su ko fa waxtu lekk fekkul di nga ko jox mu naan ndaxte suñu xëyaan mag ñi dañu daan root ndaay ba mu fees hmm. ku ñëw ñu tànk jox la ba pare di sukk hmm. suy ñu toroxlu la ba pare yaatu ku ñëw ci kër gi di nga lekk di nga naan euh, ñuy waxtaan ak yow ba pare dañu daan dañu daan am charme duñu maquillé ñu def dara mais dañuy dañuy fuddan seen loxo yi fuddan seen tànk yi ba pare jàmm soo leen xoolee rek di nga xam ne ñii ñu jekk lañ ba pare doo ci gis jigéen boo xamante ne dafay make dafa xewagul woon day day def benn sër daan nañu oddoo lu mët ay juróom-ñaari sër sa satala bi nga xamante ne léegi moom la euh, nga xam ni yàgg na bu ko ñoom Golbert Diagne doon def euh, mhm. théâtre ku tàngal sa ah, satala bi waaw da nga daan gis ñoom euh, ku ci ayawaan da nga daan jël xale yi ci ñoom lañ leen lañ gisee lool nga xam ni da ngay jël sa sa sa sa ànd waaw teg ndox mi muy tàng jëm suba nga xam ni sa borom kër su ayee bu xëyee loolu lay jël sax boo ko bëggee laaj da nga koy attaayal ci ci voilà at attaaya bi sax daf ci am solo toog ak moom di waxtaan <laughs> toog ak sa borom kër di waxtaan loolu yëpp daf ci am solo mu teg ay ay critères yoo xamante ne dañ ciy xam dañ ciy xamee soxna su baax loolu yëpp da koy da ciy bokk ba pare mën a mën a accueillir nit yi ñuy ñëw tamit di di nekk ñuy ñuy jël ñi nga xam ne seen borom kër yi dara nekk tool ñuy togg di dem yóbbu di di di taxani di def yëpp peut-être loolu ñun tey weesu nañ ko mais Euh, hospitalité bi war loolu mën mën na mën na mën na dugg ci li nga xamante ne mooy waxtaan bi ah. te te mag ñi lu ñu lu ñu daan woon def mooy comme jigéen léegi ni ñuy gis ngay dox ba mu neex la mhm. sa sër di tas ngay odduwaat di defaraat mag bu odduwaat daanaka xanaa mu mu neex ko mu tekk ko mais léegi loolu amatul loolu bokkoon na ci tamit li nga xamante ne moom la ñu daan gisee suñu mag ñi donc suñuy suñuy lim seen ay ay ay critères mbaax ak yooyu fii la ñuy fanaan mais suñu ñëwee ci aada yi bëri na loo xamante ne moom la mag ñi di digal ñi nga xamante ne ñooy ñooy soxna yi rawatina suñu mbokk soxna yi nga xamante ne dañoo nekk ci biir néegu sëy ndax mag ñi dañu lay wax ni su fekkee da nga bëgg sa ay doom ñu juboo rawatina sa doom yi nga xamante ne dañoo toppante dañu fexeel yow ñu bokk benn mbootu boo xamante ne moom lañ leen di bootee uh-huh. ñu ne euh, bu fekkee xale yi ni ñu toppantee noonu la ñuy bokkee mbootu yàlla mën na def ci ñoom juboo parce que dañuy dañ lay wax sax ne la su fekkee da nga dem ba am ay jafe-jafe ci sa njaboot ñu xëy di xiiroo di ŋaayoo borom xam-xam yi da ci am ñoo xam ne dañ naan la na nga jël mbootu bi nga xamante ne moom nga leen bootee woon nga indi ko ñoom am na luñ ci mën a def ngir yàlla def juboo ci sa biir ay doom mhm. donc pour wax la ne la mbootu dafa am solo mm. donc loolu mag ñi bokk na ci loo xam ne dañ ko daan fonkloo suñu bokk soxna yi li nga xam ni moo di seen mbootu bu weesoo mbootu li ànd bu toj dañuy bañ euh, nga jël ko di ko sànni ci mbalit ànd moom moom la ñuy wax xandoor ànd bu toj danga koy gas ba mu xóot nga suul ko ndax bëri na loo xamante ne dañ koy for euh, ñi nga xam ni dañuy yëngatu ci wàllu tàggat yaram dañu koy jël di ko tàngal ndax am na ay xaatim yu ñu koy booleel mm. suñu moo ko mbëri ñu baal ma dañ bëri na lu ñu koy utiliser moom xandoor muy dammitu dammitu ànd ndax dañuy wax ni suñ ci defee dara Euh, dafay tax xolu borom maanaam kii moomoon ànd bi. di ci def cuuraay ngir neexal ak yëpp. moom day tax xolam saa su ne dafay tàng. ba tax na mhm. su fekkee da nga am ànd mu toj nga gas nga suul ko. donc mag ñi loolu lañ la daan wax mhm. am na ñoo xamante ne sax ñoom xam nga ànd bi booy xool ban la mhm. bu fekkee amoo espace pour gas mu xóot ak yooyu da koy da koy dëbbatee ba mu xaw a mokk nga nga nga mën ko tuur donc am na ñoo xamante ne loolu la ñuy def bu weesoo ànd bi tamit mag ñi dañu doon tere euh, bale bi nga xamante ne sa kër moom ngay bale douche bi. di ko balee néeg bi ngay balee néeg beeg saal beeg. mais moom xel sax da koo nangul professeur. voilà dañu ko balee douche koy balee kër. da koy balee sa ëtt. ah loolu loolu moom xel sax da koo nangul moom. loolu moom jarul sax mag yi di ko tere. waaw moo tax nag mag ñi insister parce que am na ñoo xamante ne. lépp nga leen di wax jeena lépp nga moo tax mag ñi doon insister ne euh, bale bi ngay bale bi ngay fobeeree douche bi sax waroo koo fobeeree ëtt bi bi ngay fobeeree ëtt bi waroo koo fobeeree sax aman ah, daal faatu sobe la nga bëgg ko génn fi ngay jullee loolu benn la ba pare mag ñi dañu ne loolu tamit su fekkee da koy def dafay delloo kër ginnaaw donc bokk na ci luñ lay teree di la wax yenn yi tamit pour nga pour pour pour nga tiit parce que naa lakk bi aussi jërëjëf am na ñu koy am na ñoo xam ne tey seen yére yi bu ñu froissé amuñu mhm. table dañuy jël rek teg ko ci kaw lal bi passé ko mhm. am na ñu koy def de mais dañ ah, koy tere baaxul <laughs> man je pense que li lakk ànd bi wala dara moo tax ñu koy wax uh-huh. mais bokk na ci leneen li nga xamante ne moom la mag ñi tamit di tere mooy kuy ku di ku guddi parce que dañuy wax ni fireeku guddi baaxul ci ki koy def mais baaxul tamit ci boroom këram mais ñi nga xam ne da ngay gis ay nit yoo xam ne dañuy faral di am euh, ay métitu bopp fréquemment dañuy wax ni euh, ñooñu mooy ñi nga xam ni comme mbuyit yi lañ koy waxee maanaam booy fireeku karaw yi nga xam ni moo ci moo ci dañ xam nga mm-hmm. picc day cof rek di dem picc yi lu ñu for dañ koy jël di ko tàggee mm-hmm. ñu ne euh, karaw yooyu bu ko picc tàggee mooy waral yow tout le temps da ngay faral di am ay métitu bopp moo tax ñuy tere su fekkee da ngay fireeku sa karaw yi boo paree nga dajale ko yëpp gas suul ko waaw ñuy tere tamit ngay ngay ngay fireeku guddi euh, leneen li nga xamante ne moom la mag ñi également mooy boolu añ wala boolu reer fi ngay añee wala fi ngay reeree nga koy déplacé maanaam si kër gi ngeen ngeen fi ngeen di añee bu leen ko changé wala fi ngeen di reere parce que mag ñi comme lu ñuy wax euh, njël kenn du ko bu fekkee da ngeen tàmm añee wala reeree ci seen perron ngeen continuer di fa añee wala ngeen continuer di fa reeree mais pas ngeen di añee fii tey bu subaa ngeen di reeree fële di ko changé loolu mag ñi dañ koy tere euh, mag ñi dañuy tere également euh, jigéen dàll bu mu jot rek sol nga gis jigéen yoo xam ne bu ñëwee ci kër pour simi daal ñu sol ko loolu tamit <laughs> loolu tam mag ñi dañ ko daan tere parce que dañuy wax ne jigéen buy def euh, dàll yu mu jot rek sol ko njaaloo daf koy yomb donc loolu moo tax euh, mag ñi di ko tere leneen lu mag ñi di tere mooy yow ustensile de cuisine yi nga xam ni bi ngay sëy si moom lañ la yabee mm-hmm. bu ko abale mm-hmm. parce que tojtal tojtal la comme ni ñuy waxee mm-hmm. ndaxte booy ñëw euh, bu ñu lay yab dafa am ay ñaan yoo xamante ne moom lañ ci defal donc dañ koy bañ donc lii nga lii nii ngay gis nii mooy bakku alfi bëri na lu mu koy utiliser donc bakku bi mag ñi daanuñu ko woon able parce que bakku dañuy wax ni su fekkee da nga am sa njaboot kenn tukk ci lang maanaam ñibbisiwul wala amoo ci moom ay nouvelle am na euh, dañ lay wax nga laax mais booy laax am na yu la mag ñi di wax yooyu tari yoo xamante ne moom ngay laaxee ak spatule bi nii soo ko defee yàlla mën na def sa njaboot fu mu mënti nekk dina ñibbi si fekkee la moo tax ñuy wax euh, bakku yi bu ko nit ñi di abalee uh-huh. bu weesoo bakku tamit paaka également mag ñi dañuy tere euh, paaka bi nga nekkee sa biir waañ bu ko jël di ko abale paaka kenn du ko abale tamit parce que dañuy wax ni paaka bu génn buy faral di génn waañ rek borom waañ bi day génn kër gi maanaam bu ñu waxee génn kër gi moom mooy tas donc paaka leket également mm-hmm. mag ñi daanuñu ko woon abale leket mm-hmm. paaka donc ak bakku yi yëpp bokk na ci loo xamante ne mag ñi daanañu dañ dañu daan bañ ko ko tere mais également gën tamit daanañu ko woon abale dañ ko daan jël di ko dëkk donc yii waaw yii yëpp ku ko ku ko mën jeena ba ak cin bi nga xamante ne moom lañ la indee bi ngay sëyi comme ni ma ko waxee bokk na ci loo xamante ne mag ñi dañ ko doon tere <laughs> voilà mun euh, bàyyi nga bàyyi ko en tout cas moi je pense même que Marianne je te fais juste une proposition mm. professeur je pense que ne que tere yi ah je pense que da nga sa war a ñëwaat vendredi cest dire que vendredi que tu sois que que focus sur les terrains. parce que je pense que ne que voilà euh, c'est important de le de de dire et revenir parce que am na terrain yu bëri yi nga xamante ni bëgg nañ nga lim ko mais xam nga waxtu bi daf ñoo xaw a euh, voilà daf ñoo daf xaw a. Euh, tënk euh, mais tere yi moom c' est hyper important et ça je demande euh, vendredi prochain que ñu ñëwaat si parce que c' est important que nit di seetaan ñu mën comprendre bu baax li ngay wax mais aussi yokk ci tere yi yi nga xamante ni sénégalais yi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax professeur waaw c' est bien li nga wax noonu mu nekk lu ñuy lu ñuy lu ñuy benn bennal surtout que moom préciser na quand même ma koy protéger parce que mm-hmm. c'est ma fille na que civilisation arabe la doon wax. li muy wax suul xale. ñun mosuñoo suul jigéen. Mhm. suñu aada nit ku ñuul kenn mënul génne benn trace. Mhm. ne dañ daan suul jigéen. Mhm. donc préciser na ne ah, bi l'islam ñëwee. donc préciser na ko loolu c'était avant le septième siècle. donc pour mu pour mu leer parce que je pense que ne euh, ñun bu ñoo am cité ne ñooñu. ñu am jigéen ñoo xam ne euh, dañ doon wax ne jigéen bu baaxee day génn sëy bu bonee day des ci kër gi mhm. moo tax toppatoo ko ba mu baax jigéen boo ko toppatoo rek du la sonal waaye góor moom dañ ne bu baaxee mhm. dana wuti ku ñëw wéttali sa doom mhm. ji dem donc ci ay philosophie la nekkoon ñoo xam ne jigéen tôt ou tard moo tax Kocc Barma ne sab jigéen loo ko sopp sopp bu ko wóolu waxul sa jabar de Kocc du juum ci wolof <laughs> Kocc Barma du juum ci baati wolof daf ne jigéen sab jigéen sopp ko waaye bu ko wóolu ndax loo ko sopp sopp xamal ne dana gis beneen góor dem mhm. ñun nag ñu def ko sa jabar jàpp suñu jabar yi di dóor naan duñ ko wóolu mhm. duñ ko wax fu ñu tabax duñ ko wax ñaata lañ am <laughs> nañ tooñ nañ Kocc Barma te damay profité ci 8 ak 9 mars bi pour ne Kocc Barma waxul sa jabar Kocc Barma du juum ci wolof sa jigéen la wax sa jigéen loo ko sopp sopp dana dem amuñu jot bu ñu amee jot benn bis dinañ ci danañu ñëwaat léegi ci Kocc Barma ak euh, kon euh, baat yu mu rek daal di indi dañuy gërëm bu baax Marianne euh, pacte signé vendredi prochain dina ñëwaat ci tere yi parce que je sais que c'est un sujet hyper important mi nga xamante ni il faut ñu faram fàcce ko. merci Marianne. merci ba mais euh, tere yi. Mhm. Euh, dina dinaa ci ñëwaat incha allah mais mhm. xam nga lu ma gën a bëgg taxaw àjjuma incha allah. mooy ni que comme ni ma ko waxee sànq ñun fii Sénégal dañu am ay références yoo xamante ne tey su ma la waxee euh, par exemple soxna Jaara di nga xam ni mooy yaayu Cheikhul Khadim mhm. mais dañu am ay soxna yoo xamante ne tey ji dañu dañu jural ay sang xam nga su ma la waxee ku mel ni yaayu Serigne Abbas Sall mhm. peut-être xam nga Serigne Abbas mais xamuloo way juróomu jigéen mhm. dañu bëgg nag euh, ci 8 mars bi ñu profité si wala ci mois de mars bi ñu profité si su ñi nga xam ne ñooñu jural suñu sang yi te kenn xamu leen ñu profité si wax leen parce que wax si ñoom mhm. mooy wax seen ay qualité pour suñu mbokk soxna yi jàngee si donc suñuy ah ñëwaat ci dinañ ñëwaat ci ci tere yeeg yooyu mhm. mais li ñuy gën a insister mooy si soxna yooyu nga xamante ne dañu bëgg jeunesse bi jël ci ay incha allah ba gar mi jàpp la <laughs> amao <laughs> en tout cas c'est très intéressant donc euh, vendredi prochain dina ñëw kon ci soxna yu baax yi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy jural suñuy sang mhm. euh, donc euh, incha allah vendredi prochain merci à Marianne pour cette rubrique très euh, donc euh, importante.